كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي خدمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم niñ leen ko waxee ñoo ngi fii ci jumaay Touba taxaw ak koo xamante ni wóllëre ci sëriñ Amsatou Mbacke moom sëriñ Souhaïbou muy sëriñ Mor Diagne macha allah sëriñ Mor tey jii ku ñëw fii ci biir jumaa ji rek saxol sedd bu baax a baax ci taxawaayu sëriñ Amsatu Mbàkke waaye rawatina akhlu xasiida ñi nga xamanteni sa su nek mi ngi and ak mom ci liggey bu melni serigne Mor tay bi nga duggé fi ci bir jumaa ji mbooloo mi fess bi del ñi di jang alquran ñi di jang xasida serigne Mor ban jangat nga am ci liggey bu teddi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa moy ma ngi siyaare mbooleem mbokk julit yépp ak talib yépp inshallah di len ndokkel ci bisbu tedd bi nga xamne sëriñ Touba defal nañu tawfiix ban bokk ci ñu ànd ak Cheikh Amsatou Mbacké Souhaïbou xafisahullahu waraha di wéyal ndigal li nga xam ne alxalifatul am li taifatul muride Cheikh Mountakha jox na ko ko taxaw bis bu njëkk ci safar ngir dundal ko ngir waajal ko màggal yàlla baax na ban bokk ñu koy ànd ak moom waaye mbégte mi nu ci am ak xol bu sedd bi du mën a misaal ndax dafa am loo xam ne li sëñ Muntaxa di wax xaas la xaas nag lu yàlla jagleel ñàkk a doon man damay jàpp ne mbooleem ñi nga xam ne yàlla baax na ban fekkee jotaay bii am nañ xaas ci sëriñ Touba ndax fekk màggalu Touba taxawu ko rek ndigal sëriñ Touba la waaye xaas gi nag mooy bis bu njëkk bi nga xam ne ziyaada la ci noonu li lisin as noonu su ne wala ji alxuraan wax da jàpp ne moom moom la moom la suñu tuwaat misaal di misaal ci àdduna xos <laughs> na moom mooy mooy di su sor gi ñuy waajal ziyaada ba nag mooy lii ndax biir nañu taxawaay bii danañ ci am lu toll ne li am ci màggal di su sor ba noppi nag bu di su sor ñëwee ñu dundalaat ko waaye nag euh, jàngat bi ma ci am mooy gën a yéemaat Sëriñ Tuubaa li ma waxoon ne euh, mbindam yi ñoo fawxe sayxu tarbiya te ñu gis ne ci mujjug jamono ndaw ñëpp dañoo daw dëgmal Serigne Touba waaye dëgmal mbind Serigne Touba yi ba si xam sa moom suñu sooy ba yàlla jox ko cër bu cër bu ñu koy jox. ba tax ndaw yëpp mel ci moom ni ñu mel moom ndax xës di kon loolu li muy tegtale mooy jamono jiinu toll ndaw ñi soxla na dimbal ak xeetli ko li li gën a gaaw ci dimbali leen nag mooy tax ko xës di Serigne Touba yi moo tax Serigne Touba euh, nargan leen ci loolu. loolu li ma ciy def aw lay wax na ne jamono yi ko tedd ki dafa am mag mu ko siyaatu woon njëriñam moom moo wax nettali mu ne bi mu ñëwee mi ngi fekk maam Cheikh Ibrahima Fall ci buntu bi mu taxaw am kenn ci fere yi koo xam ne yor na ab téere boobu téere yombut mu ne ko doom am li nga yor lu mu doon mu ne ko ab téere mu ne ko ma xool mu jox ko ko muy Mawaahibu Naafi mu ne ko kii boo demee na nga ko denc ci sa gaal man mi ak yéen ñii dey gis jëmm ji ci biir muy Seexul Xadim ak jëfe ay ndigalam moo ñuy defar waaye mbind yi ña ñuy defar ñoo ñëwagunu léegi nag euh, firnde ji dañ koy dund ndax booba gis mbindum suñu daaw doon waaye ñun ñi nga xam ne mbind yi moo ngay defar bi mu dikkee adduna bépp loo gën a sori ci Sénégal mbindum suñu daaw gën gën laa yomb kon mel na ne waxam jooju feeñ na gis nañ itam junni ndaw ñoo xam ne xasida lan taxaw ba defaru seen baay yóbbu leen daara sëriñ tërbiye tërbiyewu leen kon loolu bu ne obi kitaabati ya rabbi rabbi kulli mutaalihin loolu da ciy feeñ waaye nag bis bii day bisub jagle ndax péncum sëriñ Touba sëriñ Touba nekk ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa penku sëriñ Abdou nekk ci sa càmmooy sëriñ Sall ci sa ndeyjoor sëriñ Touba nekk ci sa gannaaw nga toog ci digg bi di jàng xasida sëriñ Touba jëf du gën a rëy loolu man xaw kon na suñu yaakaar gën a dëggu suñu yéene gën a rëy ñu ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi ak Cheikh Amsat Mbacke Sohaibou ak Cheikh Bass Abdou Khadre ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jàppale ci liggéey boobu ba muy dox di soññaat murid yëpp nag ñu waajalaat màggal ndax bisi bii ne loolu rek lay tekkale lay tegtale damay faral di wax ne waajal màggal day mel ne doomi Sëñ Tuubaa dañ ko junjoon te xamuñ ko woon ndax seblaat nafaana radiyallaahu anhu moo ko waxoon bu weer màggal tara mu ne kenn ku ne na nga jàng ñaari kaamil benn bi nga def ko addi yonent bi ak sëriñ Tuubaa bi sax nga def ko addi si ñaar way jur ñetti kaamil la waxoon benn bi addi yonent bi bi addi sëriñ Tuubaa bi addi si ñaar way jur fas yéene gàttal na ko màggal gi ndax ku am ngan fonk buy ñëw da koy gàttal boo beneen waroon a xam ne jamono dana ñëw gàttal màggal xew <laughs> ndax ñoom seen làmmiñ da koy barkeel moo tax biñu demee nag ba euh, waataay màggal am nii dañuy gëm ne bis boobu dana mujj dem tey tey ba mel na màggal may wax na nag léegi li muy tegtale mooy dëggug murid yi ci seenub sëriñ ndax li ñuy daj ci màggal ba ñëpp duñu ci yërëm ñu doxalaat beneen bis ci diggante bi te bis boobu bu ñëwee duñ ko wutaleeg màggal loolu day wane ne kon ki ñu digal li muy digal gëm nañ ko may wax ne ab noon bu la dëgmalsee nga coor sa bopp ba noppi dool ko song bu bu bu bëggee boppam day daw kon bu ñu jubee màggal sëñ Tuubaa nañ nañu li dal ci ganaar ba ci gëléem ñun màggal teru ñu tàmbalee rey ganaar rek gëléem bu ñu àggee te màggal xam na ne luñ mën danañ ko def kon loolu day day gën a seetlu suñu pas suñu pas Sëriñ na loolu mooy jàngat bi ma ci am ci gàttal ndax yëg-yëg bi ma ci am nii di ko dund ak rawatina tawfeex ji ma ci am sëriñ am suñu Mbàkke Sohaybu ndax moom moom waxal boppam ne bëgg nga ñëw ànd ak man liggéey boobu sëriñ bi sant moo tax ma ne bis bii màggal Tuubaa laa ko def fu ma mën fekk dana ñu ànd ànd moom yëpp ak jullit leen ci sëriñ Tuubaa waaye leen ci ndax maam Cheikh Fall nee na woon bi ñuy defar raay bi ba ñu bëgg àgg mu ñëw barkeelu ca ndax xam na ne bu ñu tàmbali jumaay du ko fekk bi ñu ci barkeeloo noppi naa ne murid na dama leen bëgg a dénk ñetti moo fi des a tàmbali ku xëpp képp ko fekk suñ la ca woo loo ca ko ci def loo ci mënul na nga ko ci def ndax ndigal la sëriñ Bamba waxaat leen doomi sëriñ Tuubaa yi li fekk yéen ngi leen di gis saa buñ leen soññee na ngeen def lu ngeen mën ak lu ngeen mënul waxal leen bisu suñu Tuubaa bii muy màggal gi saa bu dikkatee ku ko fekk na nga ci man ak loo mën ndax ndigal sëñ Bamba su ñett yooyu jàllee leen ndigal lu jógatee na koy doxee seen sago kon ndokk ñun bi amee tawfeex yi fekk ñu fi sëriñ Tuubaa waaye fekk nañ fi ndigalam fas nañ yéene kenn duñu ci man ñu ngi jégalu baax na ci wax ji lu ci jubal yi nañu ko nañu ko jégal sant nañ leen baax yeen tam yeen yeen ñu may buntu bu ma jaaré ba wane suñu mbékté sét yi tam tawfiq ñu am ci and gën and ak señam sa liggéey bi te ñaan señ Touba dimbal ñu ci bañ bañ bañ am agalé ko nu kay suñu njortu ñong mbolém talib yépp jël ngeen jëf ñi ngi ñaanal nak seen euh, antenne bi tam yalla bokk antenne yi gëna leer ci aduna te gëna siiw gëna barkel ci barké jumaaji ak borom jumaaji ji jël ngeen jëf قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرمين